asalaamaaleykum mbokk yi euh, seetaan euh, Equivox TV tey jii nag ñu ñu ñëwaat beneen yoon euh, fas yéene seq ak yéen waxtaan ak ki ki nga xam ne mooy champion bi ñuy wax caatu <laughs> ngéwél buñ ne sept sept victoire deux défaites palmarès boobu noo noo ko gisee lu baax la wala lu lu lu waroon mën a defaraat la. waaw doom day ñu ngi sant yàlla bu baax. di julli si yonente bi di gërëm sunu ñaari waajur di nuyu waa Yoof yëpp di nuyu Ngor Wakaam Yoof Tubaab Jalaaw ñangal yeen Kër Njaay Loo Bambilor Déen sama dëkku maam maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu ñëpp di jël nuyoo waa Yoof di ko teg si loxo xalifa général Baye Abdoulaye Thiaw di ñaan yàlla bàyyi ko fi ba si kanam di nuyu Cheikh Mansour Diouf mi nga xamante ni moo fi nekkal Serigne Touba. du nuyu sama sëriñ sëriñ Cheikh Fall di jaale njabootu maam Seera Fall yëpp sëriñ Basirou Fall alxuraan di ko jaale ñëpp waaw di wax ni sept victoires deux défaites du loo xamante ne nii dañ mën a wax ni palmarès bu rafet la ndax essane tool ni ñun buñ sañoon essane tool nii dañ naan neuf combats neuf victoires mais na xëy na sunu borom nii la ko ta yàlla mu ngi ñuy suturaal am na sunu ay moroom yoo xamante ni. ñu ngi si làmb xëy na tey jii mënuñu leen ëpp ñu leen doole daaxuñu leen bëre mais xëy na seen palmarès demee fa noonu mais dañuy ñaan yàlla defet bi nga xamante ni moo fi am muy ñaari defet yàlla na yam foofu leneen li des suñu palmarès doon ay victoire incha allah waaw caatu ngéwél lan moo waral tur bi caatu ngéwél lu ko waral gis neen fi ay caat yu bëri caatu ngéwél ak caatu yoof ak caatu boy ba rek caatu nangam lan moo waral caatu ngéwél ak lan moo tax mbër yi di di di di di faral di jël ay tur euh, euh, tuddee seen bopp caat lan la loolu lu ko waral. waaw xam nga ñun moom danoo doon ay xale yoo xamante ni dañuy juddoo si këru ngéwél xamuñu leneen lu dul ngéwél te buñ demee ba ne dañuy représenté dëgg la ay mbëru yoof lan mais nag suñu base ngéwél la moo tax turu caatu ngéwél bi ñu jël ko te booba léegi jiga diw nu daal ñu ngi sant yàlla bu baax waaw boo nee yoof comme ni ni ma ko waxee sànq wax fi ay ay ay mbër yu mag yu fi nekkoon ñoom Demba Thiaw ñoom Bismi Ndoye ñoom euh, Malick ñaam bu bu mag ba si ñëw ci Malick Niang mu ndaw ñoom euh, Modja ñoom Dumbul donte Dumbul mel na ni léegi te tekki na ngeen moom dem waaye waaye boo nekkee si dëkk bu mel noonu di bëre yan mooy sa ambition est-ce que est-ce que fas nga yéene dox ci ci ci ci ci tànk yooyu. waa xam nga tey jii nii moom mooy li ngay wax ay dubun Demba Thiaw Malick Niang nu ma la ko mën a waxee Modja Guine xam nga Bébé Birahim Ablaye bari na ay champion ak sama ay moroom ay doomu yoof ay Seck ndaanaan ay Petit Lafan ay Ama xam nga ay kaabal bi bu lum doo matal canta lamp waa xam nga tey jii nii mooy ikri yoof leen moo am mooy rakk day topp magam magam yërëm rakkam ñun ñëpp ay frère lan on est ensemble bu ndajee dajee tey jii léppay neex tey jii nii sunu ay grand frère ñun ñu ngi ñaan yàlla li nga xamante ne ñoom moom lañu def si làmb ñun ñu def ko def lu ko raw te ñoom tamit ñu di leen ñaanal seen carrière yàlla defal leen si li nga xamante ni moom lañ si mbëbët ba def leen ay roi des arènes après bu boobaa nga xam ne ñoom dañuy pousse àll nu ñun ñu téye incha allah. yow lan mooy sa relation ak ak ak mbëru Yoff yi. waaw mooy li ma la wax rek mooy gis nga rakk day topp magam. mag yërëm rakkam fii loolu moo fi am. loolu la ñuy ñaan boo nee caatu ngewel dafa judd judd rek am doole di bëre wala da da doon ci ay maamam wala ay ay ay parents. non mooy li ma waxoon fils de Zallo man aw ma yaay bi bëre aw ma maam ji bëre aw ma bàjjen ji bëre mais nag xëy na yàlla def na sama deret bëre mu ngi si. ndax tey jii heure bu ma bëree. loxo dina dem gémmañ mooy loolu kon ñu ngi sant yàlla bu baax. xam nga tey jii nii am na loo xamante ni danga koy judduwaale mais am na loo xam ni don lay doon si doomu aadama mm-hmm. waaw man bëre don la si man mm-hmm. mooy loolu te du ma bëre kenn ni cam daal mm-hmm. waaw nga ne saay boo bëree ak nit lo loxo dem dem gémmiñ waaye nag mu mel mu mel ni yaa ngi soog am combat la ñu ñu bëri wax ñu bari ñu ñu ñuy waxal kay nee nañu caatu ngéwel mu ngi soog am combat si euh, combat bi contre alliance birom loolu boo ko déggee la la la lay def loolu waaw alliance birom moom duñ wax leen na lu dul moom champion la di ko nuyu à passage waa xam nga làmb moom combat boo am ñu ni mu ngi door a am combat mm-hmm. mais combat moom bés mën la gën a rëyante mm-hmm. ndax ndam dafa neex te defet na xari mm-hmm. mooy loolu combat bi daal lépp lu si war dinañ ko def dinañ si ànd ak sanu ay mbokku dinañ si ànd ak sanu ay am di jàmm dinañ si ànd ak sanu ay xarit dinañ si àndak ak waayoof dinañ si ànd ak képp koo xamante ne dañuy jàppale te combat bi alliance man yaakaar naa ne day gën a am problème quoi. day gën a am problème. waaw pourquoi nga nga wax loolu. wax ndax damaa xam ne jaaraa ngi nii sama doomu nday sama wet. doomu nday Moustapha Tall Moustapha Tall ne sama ginnaaw. Mm-hmm. alliance googu ma ne dina am sens ci combat de. Mm-hmm. waaw kon dafa mel ni jaara ak Moustapha Tall ñoo la fa kii quoi ngeen wala. waaw jaaraa Moustapha Tall ñoo nekk sama ginnaaw. Mm-hmm. ta mooy loolu maa ngi ñaan boole bi nga xamante ni moom la nu yàlla boole tey jii nii. mooy li may wax rek xam nga doomu aadama moom li naan teraango dañ koy weer tey jii nii jaara moo xam Moustapha Tall jël ma fa yóbbu ma boole ma Moustapha Tall te xam tey jii bu ko neexoon loolu mën na ko si bañ a fekk mu boole maa Moustapha Tall Moustapha tamit doon nit koo xamante nit ku oyof la wax dëgg yàlla jaara tamit kenn demul mu des moom nit ku baax la lu ne laa koy wax lu ne laa koy yegg mais terewul day xam ne ñun ñëpp on est ensemble ñoo far Moustapha Tall tamit doon ku woyof xam nga ñu dem mu recevoir nu toog waxtaan xam nga sunu borom daal boole nanu te ñu ngi ñaan ànd bi liñ li nga xamante ni moom lan si mébét yal na raw loolu incha allah kon su ma la déggee da nga bëgg ne Caatu Ngewel bi bi ñuy fas yéene gis ci combat contre Alliance Birame day doon Caatu Ngewel boo xam ne kenn mësu ko gis Caatu Ngewel bu bu bees tàq la xanaa nga nga nga wax. waaw incha allah am naa si yéene bëgg naa daal man Alliance bu ma ñëwee. xam nga man moom sama yëf musul sedd. incha allah xam nga tey jii nag bu ma toogee nii moom. mooy lool neex na maa ñemee. mais bu bés baa ba ma takk ngembuli bu boobaa mbayaar bee ñëw. mbayaar waaw mbayaar bi moom bu ñëwee. xam naa dina naqaree antan torop mooy loolu waaw. ndax Thiatou Nguéweul yaakaar na ne war na mën a qualifier mooy G5 ñuy wax cinq mbër yi qualifié ci G5 pour dem ci final eight yaakaar nga ne est-ce que war war nga ci mën a bokk. boo bëggee dégg-dégg lambu Equivox bi journée bi lu fa am maa ko fay def. grand combat ba si suuf lu fa am lu ne maa ko fay def maa leen ëpp mbooloo maa leen dàq fecc maa leen dàq bëre te maa leen waaw loolu moom leer na ñu ne si journée bi yëpp nag ah ba zedd amul kii amul kële maa leen gën a saf xorom hmm. maa leen dàq fecc maa leen ëpp mbooloo waaye ne ci ne ci ni ñi ne ci journée bi nag ki la si gën a soxal moom mooy alliance bi dam te alliance bi dam nee nañu amul fuko ko fu jaar la la la ñu ne xamuñu ko parce que du du ci doole du ci bëre du ci gannaaw du ci dara nee nañ daal amul fu caatu ngewel mën a jaar ki nga xam ne mooy Alliance Birame ba ba mën a am ndam ci moom loolu loolu la ñuy wax. waaw li nga naan ñu ne si journée bi yëpp alliance moom a si ñor ñu ne si journée bi yëpp alliance ñoru ma si de ñëpp ma ñor ndax tey jii nii borom bi. ki ki ngay bëree laa bëgg wax peut-être dama jàpp ne moo moo la si gën a ñor. déedéet ñeneen ñee ñor sax booy xool ndax borom bitigu mbagg boo gis xool ba boo ko ubbee magasin nga siy fekk. Hmm. waaw man lii sama mbébét mooy daan alliance biram sampal Maama Lamine ak Garga de nënd looloo ne sama xel. Hmm. alliance nag xam nga tey jii nii làmb moom mënul ñàkk favori. bu làmb taxawee li naan ñëpp ay coach la doon. ñii dinañ ni alliance a man ñi ne caatu géwél a man waaye alliance instant bi ñu nii. Hmm. moo man moo ëpp doole moo ëpp fit. bu bés ba incha allah ba mu jàkkaarloo mbayaar bi. loo koy indil bu <coughs> bu bés ba. alliance li ma ko nar indil alliance daal li ma ko mën a wax. Mm-hmm. mooy gis nga jaan. Mm-hmm. bu bëggee gudd fan. Mm-hmm. day moytu di génn bëccëg. loolu laa koy dégg waaw da nga jàpp ne dafa nekk di génn bëccëg instant bi. alliance instant bi ñu toll nii daal moom mu ngi wax mu ngi saala yàlla mu ngi def lu ko neex. xam nga tey ji alliance am na benn détail boo xam ne bëgguma koo wax si moom. waaw ndax dañoo def signature ma am wax bu ma ko wax sama yaay xuloo man xuloo bu tàng jër. waaw mooy lan. <laughs> non dama koy bañ a waxaat dem bi di wax tegal alxatiir. waaw <laughs> loolu. dama dafa am wax ma ko wax daal ñëw sama yaay xuloo seew man xuloo bu rëy. Mm-hmm. mais daal li ma ko mën a dégg. mooy alliance man moom suñu bés du sedd. ba mu lekkee sama avance la am problème avance mbayaar bi la lekk ta li ma koy mën a wax mooy di ni ka bu bés baa lépp si am man maa koy def na ñëw na taxaw li mu miin taxaw la man na ñëw taxaw di xaar mu ñëw def li may def daan ko incha allah après ñu ne si leneen. xam nga nag Thiatou Nguéweul toog fii euh, climatiseur yeek ventilo yi wër la ngay wax de yomb na de waaye yow lan nga am foo teg ne yow Alioune biram da nga koy daan foo la bëre la doole la mystique la wala wala lan la. non man moom wàllu bëre moom wàllu doole loolu lépp eggaguñu si mais damaa xam ne instant yi tool yi mhm. daa am lu nekk sama ginnaaw mooy li war a wax léegi. maam Diarra gi sama ginnaaw Moustapha Talla gi sama ginnaaw ñeneen ak ñeneen a ngi sama ginnaaw. Mhm. tey jii nii li naan ku am day neex a bu max mooy loolu ñu jàpp nañ ni am nañ wéeruwaay bu baax a baax a baax mhm. alliance birom mhm. bu bés baar li ma la mën a wax mhm. mooy waa si seen journée maa ko wax xam nga lii nii du effacé ku YouTube la jëm bés ba lu fa am maa ko fay def maa fay ëpp mbooloo maa fay dàq tuus may yëngal bés bi yaa koy daan wala moo lay daan bu soobee sunu borom dinaa ko daan te du ma ko daan sax jël bu ndaw bu soobee yàlla. ba ban jële nga nga koy daan. moom na taxaw di ma xaar rek. Mm. comme te loolu la miin moom manul manul a def ah bi sax mooy loolu. moom daal na taxaw di ma xaar. nga ne mënta def lan parce que li nga wax a dégg man nga moom tànk bi lay teg rek taxaw di xaar. na teg tànk bi mo ñëw jàpp tànk bi daan ko. Mm-hmm. Mm. naka nga fas yéene préparé combat boobu est-ce que fii nga koy préparé ba mu jeex wala léegi fas nga yéene voyager comme ni ko ñeneen ñi def wala lan. waa xam nga rek ñun moom combat bi ñu ngi si. ñu ngi si contrat. tey jii nii lépp loo xamante ni daal ñun jàpp nañ ne buñ ko defee. dinañu may ndam dinañ ko def bu fekkee daa laaj ñu génn. dinañ génn bu fekkee daa laaj ñu toog sanu ay mbokku préparé ko dinañ toog sanu ay mbokku préparé ko. mais daal li nga xamante ni mooy l'essentiel mooy li si ëpp solo. mooy ndam. te ñu ngi ñaan. képp koo xamante ni kilifa diine nga wala kilifa aada fépp foo manti nekk ak képp koo xamante ni da ngay bëgg caatu ngéwél ñu ngi lay taalal sunu loxo di la wax nga ñaanal ndax combat bi doon na combat boo xamante ni combat buñ soxla la tey ji nii man gëm naa ne alliance bu ma ko daanee xanaa nag promoteur dootuma woo di ma wax benn waxu booy ndax bu boo boobaa xanaa dinaa matal booy matal booy waaw léegi wàllu euh, mobilisation lan nga fas yéene ñamal euh, euh, ñu tuuti si mo mo mobilisation bu su keroog sama combat fils de Zalo xanaa ne woo arène nationale non mobilisation moom suñu yëf la man damaa yor comme ni nit ñi naan ay association man damaa yor association boo xamante ni mooy mbayaar yi instant mm-hmm. mbayaar yi instant bi ñu toll nii nii nii boo demee kër ga juga fa fees del amul heure mm-hmm. mbayaar yi rek mm-hmm. mat nañ fukki kaar tawaayoof génnaguñu xam nga li ma lay wax. Mm-hmm. bu bés baa daal wàllu mobilisation. incha allah dinañ mobiliser. Mm-hmm. dinañ def li ñu war a def. Mm-hmm. bu arbitre sifflé dinañ bëre ba kenn duñu jéppi incha allah te ñu ngi ñaan yàlla sunu borom mi nga xamante ni moo am ndam. yàlla nañu yàlla suturaal may nu ndam lu seddu guy si barke sëñ Fallou. incha allah soo amoon tey message boo koy jox moom Alliance Birame <laughs> lan lay doon message loolu loo koy wax. waa Alliance di ko ñaanal jàmm. di ko jaale sëriñam bi sëriñ Basiru Faal alxuraan di ko ñaanal yàlla na yàlla yokk ay leeram taas nu si barkem ñun ñëpp di ko wax ne daal mbër am nga combat te xam yow xam nga ni am nga combat li ma la mën a woo mooy bés ba ñëwal nga dëggal sa bopp ñu def làmbu xale gis nga ay xale buñ leen fayee promoteur yekki xaayisam jox leen amateurs yi ñëw dagg seen ay billets ñu yëkkati seen ay supporters man pour man kalkin ba waru faa bari man tey jii nii bu ma gisee lambu VIP sax ñu nekk fa kalkin bi bari duma seetaan lamb ji damay jóg dem sama yoon. alliance li ma koy dénk mooy ñun ñaar ay xale lan ay ndaw lan. te promoteur yi yékki seen xaalis fay nu ko am na lu yaakaar si ñun moom jàmbaar la ndaanaan la day mobiliser day def lépp mais leen daal moo des mooy day ñëw war a bëre taxaw di xaar na ñëw ñu daje runkuŋ waaw leer loolu leer na élage kon ñu ñu ñu jox ki nga xam ne moom mooy Maam Jaara mel ni euh, cumukaayu euh, cumukaay bi léegi moom moo ko yor moo mag Talla. non sama ménagère la. moom mooy sa ménagère. <laughs> d' accord léegi ñu jox euh, Maam Jaara mu am ñaari baat ak ñett sànni ci combat combat bu mag bile nga xam ne moom la caatu ngewel di waajal contre Alain Birame. ginnaaw ba ma leen nuyoo. bi moom nañ ko doon waajalee tey dañoo gën a pare di wax incha allah alliance xaw ma. am na problème am na problème bu baax a baax di wax waa yoof nañ ko def comme nañ ko daan defee nañ doon génnee combat bi nañ ci gën a génn ndax kat mbër bu commencé euh, commencé fenn bu ñëpp xam ne mu ngi yéeg nañ ko gën a dooleel moom laay wax képp koo xam ne mu ngi doon jàppale caatu ngéwél na ko gën a jàppale bu baax a baax lu ñu jàppale rek doyul incha allah ci kàttanu yàlla ma koy ñaanal yal na ko yàlla may ndam yal na ko yàlla may ndam loolu laa koy ñaanal ci barke sëriñam mais ay mbokk de ngeen nar ko jàpp rek tër ko doon pour ono ko moom dafa dugg ci mbayaar bi te xamul ne mbayaar bi duñu xaddi duñu xaddi benn yoon. man daal nee naa ko am na combat na dëggal boppam si jour baa ñëw bari rek. Mm-hmm. xam naa ne ndam bi moom ci ñun lay ñëw incha allah. kon nag mbokk yi loolu mooy euh, ca caatu ngéwél on est on arrivé au terme de kii émission bi boo amoon tey looy tàggoo <laughs> lan lay doon. waaw di nuyu sama waa place bi bu baax place bi. tuddati waa waa guney waali yoof waaw ñooy pose fii di def yu rafet fii mooy sama campus fi laay nekk presque lu bari di la nuyu bu baax di nuyu sama gars yi encore une fois di nuyu mbayaar yëpp di nuyu waa yoof di nuyu ngor wakaam yoof di tàllal sama loxo waa yoof yëpp bépp autorité bépp ñaankat maa ngi lay tàllal sama loxo di la wax nga ñëw nga ñaanal ma waa di di di nuyu DG nag Moustapha Tall doomu nday jaara di ko wax ne ko Tall iPhone bi yaay gis de bi ma fi ne iPhone bi na gaaw yow moom loo digoo def ko mooy loolu mooy loolu mbër maa ngi nii instant bii la yor yaa bëgg a xam yow xam naa ne onze laay laal wala x <laughs> mooy loolu waa di la woo si combat bi bu baax di la nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñooy say xarit di wax waa Yoff Moustapha Tall ndaw la boo xamante ni Yoff la nekk mu ngi dimbali jeunesse su yoof képp ku am problème mu ngi siy taxaw ñi nga xamante tey jii nii xam nga am ñoom ñooñu def ay Moustapha Tall dañuy def lu baax mais duñu bëgg sax ku ko wax tey jii nii Moustapha mu ngi si ordonnance yi Moustapha mu ngi si dund nit ñi Moustapha Tall mu ngi si leneen ak leneen di ko wax ni ko moom li nga xamante ni moom la mébét pour Yoff yàlla na ko ko yàlla defal di ko waxaat encore une fois téléphone baa ngi nii mooy loolu di leen nuyu waa Equivox bu baax di leen wax waaw làmb moom ku si dugg ku ne boo yokkul da ngaa wàññi te yéen boobu ba léegi yéen a ngi seen liggéey di yokku di taxawal ay affiches yoo xamante ne affiches yu am solo la di leen wax li ngeen xamante ni moom ngeen bébét suñun bëri yëpp yàlla na leen ko yàlla defal bu baax a baax a baax di leen nuyu encore une fois di nuyu waayoof di nuyu sama yaay bu baax a baax a baax di ko wax yaay booy dundal ba fekkee sama njariñ di ñaanal sama papa fa mu nekk gënal ko fu mu jógee di nuyu mbayaareeb waaw jaa ngeen jëf